ñi nga xam ne dañuy xeltu jëm ci wàllu analyse politique ku nekk nag di ci wax sa gis-gis ñu tàmbali ci kan yor a Dia nee na moo tayaatoo bu baax a baax li muy def moom Mimi Touré stratégie am lay teg pour politiquement mu existé Omar Thiam ne fi mu nekk nii Mimi dafa xat ci biir APR Moussa Diaw ne position dina inconfortable du neex de ci biir majorité bi ak lu mën amit ba des daal Aminata Touré moom ma ngay wéy di dëggal ay kàddoom nee na ci biir yenn kaay bii di laas fausse polémique lañ bëgg indi ci communiqué gouvernement bi ak moom lu mu wax ci biir yenn kaay bii di les échos waa PDS na fen wu rëy fen wu rëy moom la gouvernement bi def ci communiqué bi mensonge d'état lañ ko mën a tuddee Ousmane Sonko ne mimitre Touré dëkkeel nii rek di wax dara lu dul dëgg dee ko dëkkee rek ba pare nag sax ci nag ne doo ci génn benn yoon Omar Sarr ba ngi leen di kokkali ci biir yéenekaay bii di laas ne ñetti montre juróomi oto benn épave la sax lañ am ci traque bi ci biir Vox Populi Birahim Seck yor martoom dajji nguur gi dajj yu méttee métti nee na du lenn du lenn du lenn lu ñu wax ci communiqué bi lu bàyyeekoo ci traque des billets ak acquis rax ci dolli gouvernement bi tuddul 37 milliards yu dipp wóot yu Aminata Touré doon wax est-ce que du diffusion de fausses nouvelles wala dañoo denc ci fenn 12 milliards 400 bañ mu siiw Mame Mbaye moom ci biir yéenekaay bi de enquête nee na. ci transport aérien rek lépp 470 milliards am nañ ko ci wante aéroport ak société ANAS mun ñu ko dugal ci loi de finances rectificative muy wax nag lu tax président téye dossier Sindiély wàdd ak bu Yankhoba Diattara dossier Aïda Ndiongue kenn téyewu ko moom ginnaaw bañ ko dàqee ñetti at fukki prolongation ak juróom-ñaar tëj nañ ko yéen kay bi Les Échos moo ñu ko xamal ba jox mbir yi ay avocat am ñetti fan nag lañ am ngir indi seen gis-gis ci lañ leen tuumaal xalifa Sall tey lañ koy dàq ci biir parti socialiste yéen kay bi moo ñu ko waax yéen kay bi les économies semaine bi këy dina naqadi lool ci xalifa Sall dañ ko dàq tey ci biir parti altine mu fete 61 ans juge bi fas yéene ko àtte mercredi waaye juge yi ñoom fi mu nekk nii seen colloque ba ñu amoon jeex na yéen kay bi enquête ne est-ce que réeróo doo am ñoom UMS ak nguur gi lu tax UMS nee na Macky Sall ak ministre de la justice nañ génn ci conseil supérieur de la magistrature dem taxawee fële teewul ci biir yéen kay bi les échos Souleymane Teliko du président de l'union des magistrats Sénégal ma ngay tagg Ismaïla Madior Fall nee na ko homme d'état nga te nga confiance bi nga xam ne. chef de l'État dénk na la ko ñu jeexal a glace Sada Ndiaye transhumé na jërë ngeen def di déglu di jeg soo ñëw si dëgg ba tey pour incha allah.